Rewmi dal leen ak jàmm ci xibaar lundi 5 février 2024. mu mel ne jamono yi Sandaga daal di nay tàng jër ndax ñii di ndaw ña kat daal di nañuy fipp jamono yi ginnaaw rek ba ñu daggee connexion bi mu mel ne rek ñoom fi mu toll nii la ca des mooy jubale fi nga xamante ne rek mooy ville ndax kat bu ñu xoolee fi mu toll nii ña nga def mobilisation commencé rek di taal ay pneu fi mu toll nii mu doon loo xamante ne lu doy waar la ndax bu ñu xoolee rek ci assemblée nationale moom député yi. loi bi nga xam ne ñu ngi koy voté pare guñ ca ndax kat ñanga nga ca waaye ñii di yeewi askan wi mayu ñu leen dara ña nga leen rek tiim di leen rek gëdëgal di leen rek xoqatal mu doon loo xamante ne ñoom député yi nga xam ne ñoo fa war a ci pouvoir bi sax jamono yi amuñu fit waaye nag fi ñu wax ak yéen daal kon ci sa ndag mom ma nga tang jeer ndax ndaw ñi ñepp ña nga fi pré ko commencé tal ay pon way yité ñu bar ci ñom ña nga jubal fa nga xamantene moy ci ville ba mu doon lo xamantene rek du doy wala ci réewum sénégal fi ñu wax yeen ni tay ji tombé ak lundi 5 février 2024